بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala noo ngi ñaanal sunu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu mbokk jullit yi ñu ngi ànd ak yéen ci téere yàlla bi tabaraka wa taala ba tey ñu toll ci suratu nisa bi iznillahi tabaraka wa taala tey ñuy jël aaya 47 mu nekk benn aaya bu nu borom bi tabaraka wa taala di jàngal ñetti mbir bi ci njëkk mooy almafruud ann zal ilmi yakunu aqrabu ila alhidaaya léeg-léeg li yàlla tabaraka wa taala farataal ci jaamam yi wala lii aada li ñu miin mooy borom xam-xam mooy nekk ku jub loolu nit ñi miin mooy aada léeg-léeg doomu aadama yi bu ñu gisee borom xam-xam muy def yenn yoo xamante ne waxuma sax dafa xaraam loo xam ne ñi jàngul du ko def sax dañuy sit boroom xam-xam boobu misaal rek doxal ci mbedd mi di lekk ngay kilifa ngay boroom xam-xam nga dox ci mbedd lekk da ngay gis nit ñi ne wax kii du diw ak misaal yeneen yu demee noonu kon li ñu tàmm miin ko mooy almafruud an zel ilmi yakunu aqraba ila alhidaya li ñu tàmm daal mooy borom xam-xam mooy gën a jege jub walakin sabaqat saqwatuhu lima yalamu allahu taala min ixtiyaarihi alchar walisrar alayhi la yanfauhu alilm su fekkee borom xam-xam bi ñu taamu ci moom ne moom moo war a jub nit ñi topp ko gars yi dañu naan ida zalla al aalimu zalla al aalamu zalla al awaalimu ñu ne isa mooy bu fekkente ne zalla zalla tarxiis na lan mooy tarxiis ku doon dox ci perong daal di glissé ñu ne su boroom xam-xam glissé lan lañ bëgg a wax ci loolu su borom xam-xam juumee defee lu mu warta def ñu ne zallal awaalimu day yóbbaale monde bu bëree bëri ñépp def lim def day gis tey borom xam-xam buy buy jox loxo jigéen taalibe yi gis ko taalibe yaa ngi toog jigéen xuus mbooloo mi ñëw ba fekk kilifa gi toog kilifa diine bi sëriñ bi imam bi ustaas bi borom xam-xam bi mu ne ko jabb loxo kooku ne ko jàpp nangu loxo bi ñi toog lu ñuy wax ah lii dara nekk ci ndax bu bañoo waaraamoon sëñ bi du ko def bu ko defee ñëpp ñu jóg loolu la ñuy def soo leen ne araam na ñu ne gis nga gis naa ku la raw def na ko dimbali ma moo tax musiba bi gën a garaaw mooy nga am xam-xam ndax xam-xam amaana la ci yàlla tabaraka wa taala danga war a wane ne modèle ngay nekk modèle wala ñu ne borom xam-xam moo war a jub su fekkee borom xam-xam boobu ca azal yàlla bind na ko mu war a texe bokk ci ñi texe waaye bu fekkee ab kàccoor la ko yàlla def musiba am na waykat bi nee na fasadun kabirun aalimun mutahattik mu ne wa akbaru minhuma jahilun mutamassik mu ne wahuma ñaar ñii fitnatun lil alamin azima mu ne yàqute gu rëy ngi nii ñu ne lu ko waral mu ne aalimun mutahattik boroom xam-xam buy buy buy xët yor sisoom rek boroom xam-xam boo xam dafa yor sisoom yor texte yi di kuppati di kuppati texte yi di dagg ak kan ku xamul dara kuy jaamu yàlla koo xam ne moom xamul dara waaye chaque jour bu ñuy noddi fajar mu ngi ci jàkk ji mu ngi première chape waaye jaahil la xamul tus ñaar ñi musiba lañ ci diini jaahilun mutamassik ku xamul dara ku jàpp ba mu dëgër du bàyyi boroom xam-xam bu kàccoore buy def lu ko neex nit ñi dañ koy topp ci musiba fekk kenn nekkul ci diine loolu nag mooy sunu jamono tey yonent bi doon na wax ne innama axaafu aleykum aimmatil mudillin li ma ragal mooy njiit yuy réeralaate allahu akbar yonent bi nee na li ma gën a ragal ci yéen mooy ngeen am ay borom xam-xam yuy réeralaate xoolal tey Sénégal kuréel yi fi judd kenn xamul nu mu toll ci mbooloo yi woote yi laa ilaha illa allah te woote yëpp yi ci ëpp dañuy xotti sharia dañuy xëtt sharia islam day gis mbooloo moo xam ne waaja lam leen sant dara du ci diine gaa yi wër ko ñépp wër ko def lu leen neex waaw mu ne dara araamul yëpp dagan na su waxee rek ñu ne na xumbute dagan ñuy fecc di woy di naan sàngara di tux yamba di njaaloo amul julli fajar amul dem jàkk amul set amul juma amul koor amul lenn ci diine waaw ñaata mbooloo loolu loolu tey boo koy lim ci Sénégal mbooloo genn wàllu mbooloo yëpp dañoo weddi yonent yàlla Muhammad weddi yonent yàlla Muhammad du taxaw ne man gëmuma Muhammad déedéet mais da ngay def loo xam ne Muhammad du ko tere ñu ne la lii baaxul nga ne man maa tey loolu mooy weddi Muhammad xam nga ne doo fi gis kenn ku taxaw takk rajoom naan man gëmuma yonent bi maa ko déedéet waaye ci say jëf lan lay wan ne gëmoo yonent bi ci say jëf ci say jëf xoolal démb benn jigéen dafa ma woo téléphone mu ne ma xam nga lu sama borom kër def mu ne ko déedéet mu ne daa tëdd ba trois heures du matin mu daal di yeewu jël siwo ndox ñëw ba ci digg kër gi kër gi karo la de mu simmi ku def yaramu neen jël ñeenti guro guro bu nekk mu jam ci puso dool ko ci ndox mi jël ndox mi di ko sangoo ndaw si ne damaa jékki-jékki di dégg car car car car ci karo yi car ma daw song ne lii lan la mu ne maa ko tey xam maa ko def exprès xam naa ne ma ne lii lan la gis ko mu def yaramu neen nu ko yaayam juree di sango mu ne mu pare naan ma yow amoo benn sutura su xale yi yow woon fekk ma fii nag mu ne ko damaa doon yuuxu pour xale yi yow gis la loolu laa bëggoon comme da ngaa dof mu ne ko boo toppee sa kili sa sëriñ yi leen ñu dof loola xoola borom kër am sa salle de bain am sa sa toilette am sa kër R plus 3 nga simmee ko 3 heures du matin ni la sa yaay juree ci ci di digg kër gi ngay xëppoo ndox ko koy dof na ba pare ah xanaa sax nga dugg ci benn pante rek waaye déedéet comme xam na ne da ngaa dof gëmoo tus gëmoo yàlla ba pare nag guro yooyu bu ñu xëyee seen ci jàkka ji ana imam dindi puso yi rocc puso yi ndànk imam xam da nga yëy guro imam ne waaju na am wala ñu dajeeg yow ci ma ne sëñ bi lii de guro la nga jël yëy xamoo li nga yëy bàyyi leen guro yi ngeen di yëy ku ci bàyyiwul guro yi ñuy saraxe ba nga yëy ko di nga yaakaar na yaay yëy guro gi fekk guro gi la yëy parce que du sarax ngir yàlla ay xërëm ak ay lu kenn xamul yooyu la ñuy def loolu yàlla dimbali kon léeg-léeg ab borom xam-xam yàlla bindu ko ca azal mu nar a alku ndeysaan nga gis ko muy nuur ci musiba xam-xamam du ko jëriñ waaye xam-xamam du jëriñ keneen bal day réeralaate rek wala yahtadi bi haula il yahud mu ne loolu tax yàlla bi muy xas yahud yi ci aaya bi mu jox bépp borom xam-xam bu dul jëfe xam-xam jikko yi yahud ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam woo na yahud yi ci ngëm ñu daal di lànk bañ a gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñaareel bi li ñuy jàng ci aaya bi mooy wujubu taajilu tawba kuy tuub day gaaw tuub day gaaw de tuub day gaaw tuub day gaaw tuub day gaaw dee day betti tuub dafa war a gaaw da ngay tuub tuuba léegi waaye naa xaar tuuti ndeysaan fan yi damay déglu benn cheikh du Khalid Rashid mu ne benn xale bu góor dafay ànd ak ay xaritam ñu nekk ci lu bon guddeeg bëccëg moom yàlla dimbaliku mu gindeeku bu mu gindeekoo dootul tarda jàkk di jàng alquran di def ay askar di woor lundi di woor jeudi ba normal jub léegi nag muy fexe xaritam yi nu ñu ñibbisi waatee ci dëgg gi xarit yi ñoom tamit ñu ngay fexe moom it nu mu bàyyee lii fekk si waat leen benn bis xarit yi daal di réunion daal ne gars yi yéen sunu copain bi sunu gaayan bi mais ñàkk nañ ko de ñun caaxaan nañ ba waa ji rëcc ñu nii quoi mais nañ ko delloosi gars yi ne waaw luñ koy delloosi ñu ne ku nekk na nga teg cent mille ñu organiser sortie ñu génne ko dëkk bi waaw mu noyyiwaat nouvelle ère mu fiixaat tuuti fiixal xolam gars yi daal di cotiser xaalis ñëw ne ko dañoo bëgg a ànd ak yow mu ne waaw sorti la ñuy dem de sorti ñu ne waaw mu ne ah ñu ne ko non dañoo bëgg nga nekk suñu imam di ñu jiite julli gu ñu julli nga bayaannu gars yi loolu ngeen ci wax gaa ji day dem wala dem mu ne alhamdulilah rabbi ah macha allah ak dabaaw bismillah ñaata la ñu gars yi ne ko bul cotiser xoola moom yéeneem li ko yóbbu ndeke gars yi dañ koo piégé wax ak benn xale bu jigéen hôtel bi ñuy logé ñu ne bu ñu yegsee rek danañ ko mandiloo buñ ko mandiloo ñu tëj laak moom ci biir néeg bi loo xam ci moom defal futti ko bu mu set ni ko yaayam juree soo paree nga woo ñu ñëw ñu daal di yegg si ci hôtel bi ku nekk dugg néegam ñu ne ko fii mooy sa néeg gars yi daal def délégation ñoom ñëpp ñëw boisson bi ñu def ndeke def nañ ci drogue ñu drogué ko wax xale bu jigéen bi ñëwal xale bu jigéen bi ñëw dugg sawaay fekk waa ji mu màndi mu fëtti ko sëy ak moom def ko lu nekk lu nekk loo xalaat fëtti ko ni ko yaayam juree fanaanoog moom ba ba set daal di wooye gars yi ñëw leen ñëw leen ngeen jël ay pause ci moom kii moom xaw ma kan moo leen di waarati waaye du kii xarit daal di ñëw wër ko nag gis ko ni mu tëddee ak mànd bi ak nelaw bi quoi sawaay cheikh oustaz jogal nag jogal bayaan gis nga de waaw ku nekk di sabati waaw doo jóg waaw yaa ngi ne las ci lal bi rek doo jóg ndeka waa ji dee na bu yàgg waa ji ndaw si di ubbi ji bunt bi di woote ji la waa ji dee bu yàgg ci kaw lal ñu yëngal yëngal waa ji jógul ñu këpp ci kawam di yuux gis nga kooku ni mu bëggee woon tuub ak ni ñu ko delloo si waatee ci mbon moo tax saa yoo bëggee tuub su lay sa copain di jël si bul dem yow kese àndal ak ay nit wóorul xoolal ñii ni ñu delloowaatee kii ci mbon xoolal ni ñu yàqee jaamu yàllaam moo tax ku am ay xarit bu yeboo nga am ay xarit yu baax bu yeboo nga wut ay àndandoo yu baax su yeboo nga xam fi ngay jëm su yeboo nga dëgër su yeboo nga ñeme ci yoon wi mbokk yi yoon wii ku ñemewul du ci jaar mag ak ndaw góor ak jigéen wallahi fi ngeen bëgg jaar ku ñemewul du fi jaar ku yox yoxi du fi jaar ku tàppet du fi jaar ku buqat du fi jaar ku yox yoxi du fi jaar ku ñemo ñeme de waaw ku yebo ñeme takk sa fit yemale am ak ñàkk yemale xiif ak mar yemale tumaranke waaw wala doo yegg fi nga jëm parce que ci jamono boobu lan toll ku sàgg na sa diine rek ñu ko la mbokk yi wujubu taajilu tawba gaawe tuub dafa war a gaaw qabla nuzulil azab balaa mbugalum yàlla di wàcc wa xululi ma la yuhibbu al insan min azab wa nikaal balaa li nga bëggul ci yow di am gaawal nga tuub balaa li nga bañ ci yow di am feebar bu la tëral mënatoo jóg tànk yu ne las mënatoo dem jàkk ay poste yu vide amatoo loo joxe ak yeneen ak yeneen ak yeneen yu ci aju gaawal ñetteel mooy qad yakunu al masx fi l wujuh bi masxil afkaar léeg-léeg alquran wax ne niti sàngam yi dama leen a alagon dama leen a soppi ah kay ba léegi soppi mun na am de léeg-léeg nga gis nit nii di doo fekk yàlla soppi na ay xalaatam amatul xalaat yu normal xam nga ki tëdd ba 4 heures du matin nga am ñetti jabar yor R plus 3 wala 4 fu nekk ay nit jàpp la ba soppi la ba ngay def yaramu neen ni la sa yaay juree góor gu am juróom ñett fukki at nga ni dum ci sa digg ëtt kër di jotteeku ndox kooku ak ay xalaatam soppi wuñu ko soppeeku na xoolal jullit bu woor weeru koor dugg oto dem dem benn dëkk ziyaare ji kilifaam yegsi ci weeru koor mu ne leen añ ngeen gaa yi ne ko ah ñu ne danoo woor mu ne déet ñun kay ko aju ci ñun doo woor dog leen dog leen jox leen gaa yi ndox ñu naan ñu indi ndox kenn ki naan kenn ki ne ah man duma naan dama woor de ñu ne ko yow gëmoo dara yow bokkoo ci suñu kër gi bis ni ki tey génne nañ la ci ki naan soppi wuñu ko xoolal kii julli yàlla santaane julli ñu ne nit bàyyil julli mu julli mu bàyyi bu leen yaakaar ne soppi gi yaa ngeen di dégg yàlla ne day soppi nit golo wala day soppi nit mbaam wala day soppi nit nangam ba léegi mi ngi am ndax buñ la soppee ngay def yëfi mbaam wala yëfi golo wala yëfu xaj ngay soppi nañ la ah la rabu àll bu doon def yow léegi yow loolu yow loolu ngay def loolu soppi nan la ndax yow nekkatoo nit parce que nit mooy xel yow sa xel nekkatu fii kon ba léegi yàlla subhanahu wa taala mbokk yi mu ngi soppi waate mu ngi soppi kanam yi di soppi xel yi di dugal ay xalaat yu doy waar ci doomu aadama yahud yaa ngi nii yàlla da leen a soppi fa naqadu uhud ñu daal di fecc kóllëre yi ñu siñante woon ak yonant fa halaka minhum man halaka ña alku ci ñoom ña alku wa ajla man ajla natijata israrihim ala alkufri wa aadaihim lirrasuli walmuminin yonente bi alayhi salatu salaam génne ca ñoom Medine la mu génne ndax nuur gënu nuur ci kufr ci weddi yàlla ak weddi yonent yàlla muhammad alayhi salatu wasalaam ak weddi way gëm yàlla yi kon mbokk julli di aaya boobu di aaya 47 moom la ñuy jël ginnaaw ba nu tënkee li ñuy jànge ci aaya yi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل من قبل أن نتمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا برم تبارك وتعالى نينا يا أيها الذين أيين نيغا خمنا برم خم خم يا xarfu nidaa la mooy ee ayyuhallazina yéen ñi nga xam ne utul kitaab yàlla wàcce woon na ci yéen téere ee yéen ñi yàlla joxoon téere mooy alyahud wan nasara wal muraadu bihim huna aaya bii nag ñi ci yàlla bëgg a wax fii ñan la mooy alyahud la xayr yahud yi la yàlla di adressé wax ji ya ayuha alladina utul kitaab e yéen ñi ma joxoon téere tawraat bokki jullit yi mu ne aaya bi yàlla woona yahudi madine ñu dëkkoon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam naadaahumullah tabaraka wa taala yàlla woona leen bi unwaani l ilmi wal maarifa yàlla woona leen ci wootey xam-xam ak ak lan al ilm xam-xam wal maarifa ak compréhension comprendre yàlla woo na leen ci ñaari baat yooyu la leen woowee et yéen ñi nga xam ne am ngeen xam-xam et yéen ñi nga xam ne comprendre ngeen texte yi dal moo tax yàlla wax leen ñaari baat yooyu ku may toon montre yi ñëw na de bismillah keneen keneen c'est parce que damay tontu xam ngeen tax yàlla wax leen loolu dañ leen jox téere kuñ jox téere nga jàng téere bi ba pare léegi nag am nga xam-xam wala amoo xam-xam comprendre nga ko wala comprendre ko ko yaa mu ne yaa ayyuhal lazina utul kitaab e yéen ñi nga xam ne joxoon naa leen téere yonent bi alayhi salaatu wasalaam qurtubi nee na jële ci ishaaq nee na kallama rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ru'uusa ahbaari alyahud minhum abdullahi ibnu suriya wa kaab ibnu asad fa qaala lahum ya maashara alyahud ittaqu llaha wa aslamu yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax naa kàngami yahud yi dajale leen kàngam yi ponkal yi abdullahi ibnu suriya ci la bokk kaab ibnu asad ci la bokk yonent bi ne leen yéen yahud yi ragal leen yàlla tuub leen waaw yéen yahud yi innakum yéen la taalamuna xam ngeen anna allazi jitukum bihi lxaq xam ngeen ne lii ma indi dëgg la lan dëgg xam ngeen ne lii ma indi nii muy alquranul karim dëgg la xam ngeen ko qaalu ma naarifu zaaka ya muhammad ñu ne ñun xamuñu ko de waaye lu tax ñu koy xam xamuñu ko mu ne wa jaahadu ñu weddi ma arafu la ñu xam ñu weddi ko sarru ñu nuur alal kufri ci seen kéeféer ñoo ko gën a xam ndax yàlla wax na ci alquran yaarifunahu kama yaarifuna abnaahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al haq wa hum yaalamuun sootu baqara yàlla nee na Muhammad gars yi ni ñu xamee seen doom yi lañ la xamee ne yow yàllaa la yónni bal sax yow la ñu gën a xam ak seen doom yi waaye nag dañuy nëbb dëgg te xam nañ li ëpp ci ñoom xam nañ ne li nga nekk muy dëgg ndax jàng nañ tawraat yàlla waxoon na fa say melokaan jàng nañ injil yàlla waxoon na fa yaa yaay kan isaa rek bala muy génn àdduna waxoon na inni wa mubashiran bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad fa lamma jaahum bilbayinati qaalu haza sixru mubin isa waxoon na ne balaa muy dee maa ngi leen di bégal yéen nasaraan yi am na yonent guy ñëw sama ginnaaw turam mooy ahmad bi ahmad ñëwee indi leen lay yu leer yu ne weng ñu ne kii njabarkat la njabarkat la mbokk jullit yi yàlla woona yahud yi ci xam-xam mu ne waxuwa nisbatuhum ila alkitab mooy askan gi mu leen askanalee téere bi allazi huwa tawrat téere bi nga xam ne mooy tawrat amiran iyahum bil iman yàlla digal na leen ne leen gëm leen yàlla e yéen yahud yi yéen ñi ma joxoon ay téere ah aminu gëm leen bi ma ca la nga xam ne nazal naa wàcce naa ko gëm leen li ma wàcce loolu yàlla wàcce mooy lan mooy alquranul karim loolu muhammad yor loolu muhammad di jàng guddeeg bëccëg téere boobu muhammad yor tiim ko di leen ci woo nga lawaay gëm leen ko aminu gëm leen bi ma ca la nga xam ne nazal naa wàcce naa ko waaw ma ni su yàlla di waxee lii yahud yi ne yahud yi gëm leen li yàlla wàcce ci muhammad kon julli di nag lan la leen wax ah muy lu raw li lan leen wax ndax téere bi ñi ci gën a yey ñooy ñan jullit yi ñu xoolal tey laa ilaha illa allah waxuma addina bi sax waaye jëlal julliti Sénégal nga teg alxuraan nga leen ci peese fuñ jëm dañuy alku ñoom ñëpp jël leen alxuraan ngeen teg ko ngeen jël jullit ñi di leen natt ci alxuraan laa ilaha illa allah waaw sa yaram day daw sa yaram day daw xoola tey réew mi daanaka jigéen ñi solatul yére ah wala daanaka sa ta ta ta ta ta ta jamono jooju ñu tolloon nga am doom bu jigéen gas ba mu xóot suul ko ñu ne lii la la nga ni gàcce laay bañ ci lañ toll de xool leen xale yu jigéen yi xool leen dëkk bi déglu leen rajo yi bés bu nekk nga dégg ay catastrophe yoo xam ne ñëpp ay jullit lañ ay doomi jullit dafa mel ne dëkk bi amatul kilifa ku nekk léegi yaay sa kilifa bopp ku nekk yaay sa kilifa bopp kilifa amatul ci Sénégal kenn du wax ah te bu fajaree nga gis jaay gaa yi njëkkante jàkka yi bu guddi àjjuma jotee nga dégg rajo yi gaa yi tëgg laa ilaa di yuuxu waaye bu bëccëgee doo gis diine doo gis jullit fu jëm barki démb bu jógee juma dama dox tali bi di ñëw ma seen benn télécentre xaw ma wari la ñaari jigéen jóg di julli ma ne ñii de baax nañ ñu ngay faxas kol ya nag waaw faxas kol yi ba kol yi kii ñu lem ba mu rafet teg kolu ba rafet julli ma bàyyi bañ ne allah akbar ma ñëw toog ne leen bu ngeen paree de dinaa leen seet seen kol yi ndax da ngeen koy teggi wala du ngeen ko teggi ba toog ñu tax a sëlmal mu dem bàyyi leen foofu ndax bëgguñu wax ak ma bëgguñu ma wax ak ñoom xaw ma ban saar lañ jàng waaye xam naa ne gudd na maa ak sama doom bi ñu àndoon ma ne ko doon dem ñi bëgguñu ma wax ak ñoom daa ko def damaa waroon bàyyi bañ paree balaa ñu waaye man leen bu ngeen di sëlmal leen bay xool kol yi ni ngeen koy defaat ñu taxaw rek ñoom ñaar tëxëru ko la ilaha illallah ay waay da ngay gis julli jot ku nekk kër goo xam ne ñëpp bopp nañ la ñuy def julli jot nga gis ku nekk daw nga gis ñëpp ñëpp ñëpp di julli ku nekk muur di julli bu ñu paree ana kol ya ñu da ñu daal di koy delloo fañ ko jëlee woon waaw loolu ban diine la diine bopp neen ah la ilaha illallah loolay li gën a ndaw léegi daanaka jigéen ñi war dootuñu ay baa la ñuy sol la ilaha illallah génne seeni yaram ci biti ween yi ci biti ngeen defe ne ween bu weñ di tag wàll yu dina ci nàmp kan ci ñun mooy denc alalam ci néeg boo amul caabi kan kan ci ñun mooy def kalpam wala sa portable ci poos bu fëq saak bu bënn poos bu fëq ku ci def sa portable ngeen defe ne yàlla dina fekk jigéen ju respecté wul boppam jigéen juy fooye boppam yàlla jël nit ku baax mu koy ëmb loolu sax jàmm la benn waaye barki démb dafa may nettali fekk ma koy wax ñuy waxtaan mu may wax yow dégg naa da ngay dem Casamance ma ne ko waaw Casamance kay dafa mel ni fu bëri léegi xam naa ko ci àll bi mu ne ma am na foo yeggagul de ma ne ko fan mu daan may wax benn dëkk ci biir àll bi ma ne ko déedéet foo dem mosuma faa dem mu ne gis nga foofu boo fa boo fa demee nekk gan soo fa fanaanee boroom kër gi daf lay jox jabaram nga fanaanoo ba set loolu la lay terale ma ne ko da ngay wax rek ah dëgg la jërëjëf mu ne ma waaw mu ne ma benn enseignant dañ ko jële fi Dakar affecté ko ci àll bi mu dem foofu guddi jot rek ndeke boroom kër gi ñaari soxna la yor daan ne ko bu guddi bu të booy tëdd ci néeg bi ngay tëdd waa ji toog ci télé bi di seetaan ba tëdd jot waa ji daal ñëw ubbi bunt bi gis jigéen ju tëdd mu ne ah xanaa damaa jaawale maa ngi jégul dama bëgg a tëj waa bi ne ko déedéet déedéet foofu la mu ne ko am na ko fi tëdd mu ne waaw yéen ñaar yéenay fanaandoo waa ji daal dem tëddi xoolal tëdd ak soxnaay borom kër gi la ilaha illallah waa ji daal di fanaan ak soxna si ñetti fan moom tamit waaw waaw bi nag dag léegi nag daal di koy yóbbu ci néegu surga yi nag mu commencé fanaan ak xale yu góor yi waaye ñu jàngale ba année bi jeex daal di ñibbi Dakar daa takk soxna daal di koy yóbbu foofu daal ni góor gi indi naa sama soxna mu ne ko waaw première guddi deuxième guddi troisième guddi paa bi daal di wax waa ji ne ko waayoo ah waxagoo ma dara de mu ne ko ah ci lan mu ne ko ki nga àndal du sa soxna mu ne waaw mu ne maa bi waxagoo ma dara mu ne ah sama soxna la maa ko takk macha allah ku baax la mu ne ko ma ne waxuma loolu de mu ne ko la mu ne ko bi nga bi nga ñëwee gan ci dëkk bi lu ma la terale foofa nan mu ne ah ana ci néegu soxna mu ne waaw indi nga sa jabar bu ndaw doo ma teral waa ñu ne ko ah mu ne ah ñun fii loolu la ñuy def de maa ngi lay déglu nag dégg nga may naa la ñaari fan nga maa ngi lay déglu waa ñu am problème daal dem ci principal dëkk ba ne ko ah kat góor gi nee na foog mu fanaan ak sama mu ne xanaa da ngaa fanaan ak soxna mu ne mu ne yaa ko def saye ah dina fanaan ak sa soxna de wala nga raw génn dëkk bi moom bàyyi doo bàyyi jàngale bi dégg naa waa ji daal bàyyi góor gi nee na ko ba guddi timis jor rek mu tëj bunt bi ubbi fenêtre bi gars yi def mu taal lampe bi gars yi def ne mu ngi ci biir néeg bi nekk jaar na ci fenêtre bi jël horaire bi départ utali Dakar noonu lañ ko fekkee beneen dëkk waaye dematul ca dëkk boobu xoolal loolu loolu ñu ne ñun ay jullit la yooyu ku koy nettali ci àddina bi ñu ne nga ni nga ni am na dëkk bu mu am nit ñooñu dañ naan la yow yaa mën a fen ndeke ñu ngi xoolal kii léegi maa ngi wax bi ma ko waa ji waxee maa ngi wax kii ne ma am na. yal nañu yàlla jël gis ngeen mu ngoog kon dégg ngeen loolu yal nañu yàlla jubal wax dëgg yàlla tey sori nañ bu sori bu bëree bëree bëree bëri sori nañ ba raw nañ yahuud yi la yahuud yi ak nasaraan yi doon def ci mboon yëpp ñun daanaka daanaka daaneel nañ daaneel nañ lépp lépp jël nañ combat bi yàlla nee na yaa ayyuha allazina utul kitaaba yéen ñi ma jox téere aminu gëm leen gëm leen lan bi ma nazzalna li ma wàcce te mooy alquran musaddiqan ngeen dëggal ko ndax musaddiqan day dëggal li ma maakum loolu ngeen yor lan ngeen yor tawraat téere bi dafa ñëw di dëggal tawraat comme téere baa ngi dëggal tawraat nag waaw kon kay xam ngeen téere bi dëgg la kon gëm leen ko bu téere bi ñëwoon sax di weddi yéen li ngeen yor waaye téere bi ñëw di dina dëggal li ngeen soppeegul ci muy dëgg mu nekk ci téere bi min qabli njëkk gëm leen ko njëkk balaa nat mi sa wujuhan balaa may soppi seen kanam yi nuzhibu asaaraha bi tamsil ayni wa izhaabi ahdaqiha gaaw leen ngeen gëm balaa may masaa seen kanam yi da ngeen doon gis dootu leen gisati ma boole kanam gi yëpp masaa ko bakkan bee kanam ge gémmiñ gi lépp bu kanam dootul amati wala bu ma deful loolu ma yóbbu gis-gis gi ma yóbbu gis gi dootul gis dëgg may yóbbu gémmiñ gi dëgg gi dootu ko waxati gaaw leen gaaw leen ngeen gëm alxuraan balaa ma leen di def lii yéen yahudi nat mi sa wujuhan ay nuzhibu athaaraha bi toms may yóbbu jeexitalu kanam yi wallaahi léeg nga gis ay nit yoo xam ne xam nga la ñuy yàlla dalee na masa billaahi wallaahi ay nit a ngi ci Sénégal nuroowuñoo kenn seen ñuulaay yi ñuuluñu comme kenn seeni baat nuróowuñu ko kenn seen lépp amul kun ko nuróol mosoon naa gis benn jigéen bu doon woote na yonant la tuddoon Modou Ndiaye Grandou nekk journaliste r boobu jamono lan moo amoon RTS ORTS ah ORTS moo amoon ndeysaan ndaw si di génn ci télé bi ne moom yonent la wallahi fi mu mujj dafa ñuul ba gën a ñuul kër yi billahi wallahi taala loolu di teg naa ci bët ñuul ba gën a ñuul kër kër yi noonu la ko yàlla soppeewoon loolu mooy yàlla lakk la àdduna bala àllaaxira képp koo xam ne da ngay jalgati diine yàlla ji yàlla du la bàyyee noonu nga dee de balaa ngay dee yàlla dina la toroxal gis ngeen ni nag bi def léegi balaa ngay dee di nga def noonu ba ñëpp di la dégg yàlla dina la toroxal di nga feebar yàlla soppi la billaahi ku la tiim danaan kii du ki ma xamoon kon nañ leen ragal yàlla xam ne yàlla du moroom yàlla boroom la mu ne fana rudduha ala adbaariha ma delloo xar kanam yi ca ginnaaw allahu xoolal nga xool nit doo gis dara ci moom loolu ginnaaw gi ginnaaw gi mooy nekkaat kanam gaaw leen ngeen gëm alquran balaa ma leen di def noonu léegi nag ñun ñi ñu wàcc alquran ci ñun suñu lànkee mën a gën alquran kon ñun lan lañu war a def su fekkee ñee wàcce wu ñu woon ci ñoom alquran waaye yàlla sàkk ci ñoom nañu bàyyi seen téere topp alquran ñun ñi ñu wàcc alquran ci ñun nag te yàlla bi mu wàcc alquran ci muhammad lu mu ko wax ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum topp leen alquran bi yàlla wàcc jóge ci yàlla wàcc ci yéen min rabbikum ittabiu ma unzila ilaykum min rabbikum loolu de alquran bi yàllaa ko wax kon nag mbokk yi alquran dañ koy topp topp alquran mooy lan mooy gëm ko def ko téere boo xam ne mooy constitution sa dundin ci alxuraan bi nga koy jëlee yàlla nee na aw nalanahum wala su ma deful lii ma rëbb leen lan mooy rëbb yàlla mooy soli la yërmande xam ngeen ne iblis yàlla moo ko soli la yërmande aw nalanahum wala ma soli leen yërmande kama laan naa comme ni ma rëbbe woon ashaaba sabt waa samedi samedi ñi ñoxoon laa taatadu fi sabti bu leen jalgati samedi ha ana ñiy jalgati samedi fii ñi baali samedi déglu leen yàlla yéen ñi baali samedi di dem samedi sorti di baali dugg ci dancing yi boîte night dancing yi ah night club yi samedi déglu leen yàlla waxoon na ay nit laa taatadu fi sabti bu leen jalgati samedi ñu lànk dem ba nu demee lan la leen yàlla def wa qulna lahum kunu qiradatan xaashiin fa jacalnaha nakaalan lima bayna yadayha wa ma xalfaha wa mawcizatan yàlla nee na bañ demee jalgati samedi ba ñëw dimanche di grasse matinée di nelaw booy foo demoon non dama demoon dem ba ci dax gi quoi ci dama demoon kii quoi lu gars yi di waxati ndox géej gi sax ah maaro dama demoon maaro quoi maaro laa demoon waaw dama demoon terrain bleu yàlla bàyyi leen ba ñuy ñibbis yàlla fi leen ay buubu golo ñi demul woon ndeysaan da ngay ñëw gis sa benn waaye nga ne kii du diw mu ne nii bopp bi man la kay waaye mun ta wax parce que golo la ñii yàlla def leen mbaam xuux borom xam-xam yi dañoo wuute ñii ne yàlla dafa def dafa def góor ñi ay golo mu def jigéen ñi ay mbaam xuux ba pare golo yu torox mu ne fa jaalnaaha déglu leen aaya bi de def naa loolu nakaalan ah muy mbugal waaye def naa ko wa mawizatan muy waar lil muttaqin ñeel ñi ragal yàlla gis nga yàlla bi mu labalee firawna lu mu wax inna fi zalika la ibratan liman yaxsha lii de kéemtaan la pour ku ragal yàlla chaque jour yàlla bu mbugalee danaan yéen ñiy dégg loolu moytu leen de lu yàlla defoon firawna mënu ko defaat lu yàlla defoon waa banu israil est-ce que mënu ko loolu tax borom xam-xam yi di wax alxuraan doo gis mbugal gi yàlla di mbugale mu mu tal ko dat amul dat yàlla danaan defoon naa nangam rek pour yëgal na loolu mu defoon mën na ko léegi mun na ko defaat fii nga toog moo tax du ko utal dat parce que mun na répété wuwaat mbokk yi yàlla nee na ñii laannaahum solil naa leen yërmande yenn saa yi nga jàng hadis ñu ne laana rasulullah wala ñu ne laana allah yàlla rëbb na rëbb yàlla mooy lan mooy soril la yërmandeem mbokk yi ku yàlla soril yërmande léeg-léeg nga gis ñu ne laana allahu alwasila walmustawsal yal na yàlla soril yërmande ku meesu ak ki ko mees ndaw si dafa meesu yonent bi ñaanal na ko yàlla yal na ko yàlla soril yërmande muy sa soxna mu ñëw di la tegal añ yéen ñaar ngeen di añandoo ku yàlla soril yërmande nga toog ak ndoog moom ci bool ngeen di añ wala loolu amul ku yàlla soril yërmande ngeen bokk lal tëdd mu leer la ne kii tëdd sa wet yàlla da kaa soril yërmandeem yàlla da koo rëbb wala wala wala sa jëkkër ji nga fanaanoon yàlla da koo rëbb yàlla da koo soril yërmande te yaa ngi ci wetam toog borom xam-xam bi da doon wax ne man de su ma séenee ku yàlla rëbb mbedd mu mu jaar sax du ma fa jaar yonente bi alei salatu salaam ànd na ak saxaaba yi ba ñu egg ci benn dëkk boo xam ne ña fa dëkkoon dañ leen a alak yonente bi ne leen bu leen fi dugg bu leen dugg ci dëkk bi wala bu ngeen fi dugg jooy leen bu ngeen munta jooy jooy jooylu leen ndax ñii yàlla da leen alagoon bu leen fa dugg de wala bu ngeen fay dugg jooy leen su ngeen mënta jooy fe jooy jooylu leen ndax ñii yàlla da leen sooy liir ma de waa mbokk yi nun ñi dëkk ak ñi yàlla sori liir ma nga nag ci biir kër yi ci mbedd yi ci gox bi ci koñ bi ci dëkk bi bokk ak ñoom oto yi bokk ak ñoom xew yi ah ñi ñuy bégal ñi ñuy bégal yenn saa yi nga gis ku def lu araam waaye lii nag sama alaaji bi laa bëgg a bégal ñu lay bégal ci lu araam ci lu araam lu yàlla bëggul ñu la ciy bégal allahu akbar nga kontaan ci li yàlla araamal ñu la ciy bégal yow yow moom ñuy bégal ci lu araam lu neexul yàlla bégal tey ay suba di nga nekk ci naqar te du yàgg dara sa mbégte gii di nga mel ne waa ji tiimoon boolu ginaar di jooy waaw waa ji doon sàcc ginaar camp militaire caaray waaw guddee rek waa ji raam rek dugg ci fi ñuy toogee gras yi te xam ngeen militaire yi dañuy compter xam nañ ñaataa fi nekk dañuy compter ku ne benn ginaar wala xaaju ginaar suñ toogee nangam rek buñ ñëwee fekk mu manqué nekk am na benn séeréer boo xam ne moom day raam rek ñëw def ci mbuusam bu ko commandant bi yégee rek mu daal di monter lew gars yi garde commando yi xam nga am na tenue yoo xam ne ak mbaax na yoo xam ne buñ ko solee day niroog suuf si wala guddi gi ñu mel ne ay garab mu solo la ci juróomi nit rek ku nekk mu tëral la ci suuf sa waay gaa yi gis waa ji tëb gaa yi ne pat rek maaseeg suuf si di ko xaar ba mu dugg ba tiim bool yi kenn ki moo njëkk a ñëw rek armé pistolet bi karaj kaj teg ko ci nopp bi mu sigi xool ñeent taxaw gaa yi ak seen ñàngaay ak dessin yi ñu def seen kanam yi ak seen li ñu camouflé kenn ku ne ko coob lekkal lekk lekk lekk ba ci àgg si ngi xoolaat xëy na ko lekkal lekk lekk lekk lekk lekk lekk si ngi xoolaat kenn gaa yi ne ko lekkal mu jooy mooy ginaar yooyu neexatuñ de ah fonkal mu tiim poolu ginaar di jooy ah ah waa jooju nu mu sant kon ba mu sant sow wala caam wala saar kon lañ ko sant loolu loolu bopp ah waaye daal tiim na boolu ginaar di jooy waaye ponkal mu tiim boolu ginaar di jooy ginaar yooyu neexatuñu de ginaar de liñ ci xamoon ku ko tiim ku ne da ngay ree wala waaye tiim ginaar di di di jooy ginaar yooyu neexatu waa ji lekk lekk lekk lekk lekk siggi xool gaay ne ko lekkal mu yuuxu wéy danaa dee naa amul ñu fi jege ñu wàllu si ma kon nag mu ngoog mbokk yi nan mooy tandik yàlla nee na rëbb naa waa samedi wa kaana nekk na amrullahi mafulan gis nga aaya bu jara bàyyi xel a ngi nii ci aaya bi fee wa kaana nekk na amrullahi mbirum yàlla santaane yàlla amrullahi maamuruhu mooy li yàlla digle kaa inun day nekk laa mahaala man dara mënul fexe ba li yàlla bëgg du am li annahu taala la yajizuhu shay xam ngeen lu tax yàlla li mu bëgg mooy am est-ce que xam ngeen lu tax kan moo mën a dindi lu yàlla bëgg guddi jot na ci ban waxtu lañ ne guddi ah buñ génnee jàkka ji nañ dem indi ji jant bi monté waat ko léegi léegi ñun ñem nañ góorgóorlu ñu xanaa ñun ñi bëri nañ ñun ñi ñaata lañ ci biir jàkka ji ñaata lañ xanaa mën nañu indi génne guddi gi nañ xëcc guddi gi mu génn ñu indi naaj bi mun na ko ah ah wa kaana amrullah mafulan yàlla nee na man li ma bëgg rek mooy am maadaama nag li yàlla bëggay am santaane yàlla mooy am kon nag ngeen xam ne kon mënunoo rëcc yàlla yàlla wax na ci hadisul kursi ya abd e yow sama jaam anta turid wa ana urid da ngaa bëgg ma bëgg am nga loo bëgg man am yàlla am na lu ma bëgg fa in aataytani ma urid boo ma defalee li ma bëgg aataytuka ma turid ma defal la li nga bëgg man yàlla boo ma defalee li ma bëgg rek ma defal la li nga bëgg wallahi wa in naazatani fi ma urid saa yoo xëccoog man man yàlla li ma bëgg atbaatuka wala yakunu baada zalika illa ma urid ma sonnal la ba say baqate ne bàcc te yàgg-yàgg man yàlla li ma bëgg rek mooy am xoola firaaw na la mu bëggoon ak li yàlla bëggoon lu am firaaw na am lu mu deful rey na nit ñi def na lu ne waaye lan fu mu mujj li yàlla bëgg rek am xool leen Namrud li mu bëggoon ak li yàlla bëgg lu am xool leen Abu Jahlin li mu bëggoon ak li yàlla xoola mbokk Yuusuf yi li ñu bëggoon ak li yàlla bëgg lan moo am xoola américains yi ba ñu juddoo ba léegi américains yaa ngi bombardé l'islam waaye boobu ba léegi rek jullit yaa ngi fi mënul dara kenn mënul jeexal jullit ñi ci àdduna bi parce que li yàlla bëgg rek mooy am mbokk yi loolu mooy darsa tey ñu ñaan yàlla mu jéggal ñu njuum tey asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu bu amee ay question incha allah